فمنذ بعث الله محمدا وجاء من جاء بعده من خلفاء وامراء والتابعون وتابع التابعين فمنذ ذلك اليوم لم تنقطع تلك الدعوه فقد كان على راس كل مئه سنه مجددون لدين الله وهذا قرنا بعد قرن إلى قرننا هذا سواء كانوا أفرادا أو جماعات لكن القرن الجديد الذي تأهل بعام الألفين يتميز بسمات عصرية حديثة وربما ظهرت مؤسسات وحركات مضادة للإسلام وأهله إن الهجمات المتعددة لا شك انطلقت من جهات متعددة ولا بد لهذه الهجمات من فضل لكن بنظام دقيق وعمل دؤوب واستراتيجيه صامته فناد يقابله ناد وحزب يقابله حزب وجمعيه تقابلها جمعيه وهذا بشرط أن يكون الخيام كخيامهم لكن نساء الحي من هنا غير النساء من هنالك لنا أخلاقنا ولهم أخلاقهم ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم اليوم فقد المسلمون كل المؤهلات الروحية والخلقية وبقي العالم الإسلامي في خريطة الدول وجغرافيتها وكأنه فقط خزينة دولارات وآبار نفط يستخدمها أعداء الإسلام لإهلاك حرث المسلمين ونسلهم فأتستبدلون الأدنى بالذي هو خير كان حسن حظ المسلمين الأولين أن جاءهم رسول من أنفسهم رسول يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وقد أحاط به رجال كانوا يسعدون بصحبته ويرقون بكلمته ويتأدبون بالنظر إليه ويسودون تحت ظله وكانت أسباب النصر لهذه الملة من الأولين تنحصر على هذه النقاط أولا إن المسلمين الأولين لم ينقلوا الإسلام إلى الأمم لكنهم بأخلاقهم ومواقفهم البطولية هم نقلوا الأمم إلى الإسلام وهذا تحت شعار الآية حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ثانيا هم أخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور السلاطنة إلى عدل الإسلام حيث الكل سواسية لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ثالثا علموا الناس أن القيادة ليست سلطة فردية ولا جماعية من الأشراف ولكنها أخلاقيات ولو ولى عليكم عبد حبشي فكانت الخصال هي هذه الثلاث الخصال الأول البصيرة في الدين فكان أحق الناس بالأمر وأقواهم عليه هو أعلمهم بأمر الله وهدي رسوله الخصال الثاني العلم بمواضع الحق وهذا عن طريق الجهاد وعن طريق العقيدة الخالصة الخصال الخصال الثالث الخصلة الثالثة الخصلة الأولى والخصلة الثانية والخصلة الثالثة عفوا الصبر على طريق الحق وذلك بطاعة الله والمحافظة على كتابه شرعة ومنهاجا فالقيادة إذا عقيدة أولا وشريعة ثانية ومسؤولية ثالثا وخدمة رابعا ورعاية خامسا فقد يكون القائد منعزلا شرعا لا حكما كما يكون القائد منعزلا حكما لا شرعا خليفة مات لم يحزن به أحد وآخر قام لم يشعر به أحد خليفة مات لم يحزن به أحد وآخر قام لم يشعر به أحد لقد وقعت الواقعة يوم انسحب المسلمون من دورهم كأمة وسط وباتت هذه الأمة وكأنها بالتعبير النحوي مفعول به لا كفاعل ونعت لا كمنعوت واذا كان الله عز وجل يدافع حتما انما يدافع فقط عن الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون لا يتوكلون على امريكا لا يتوكلون على فرنسا لا, يتوكف لا يتوكلون على انجلترا فمفتقر بمفتقر ينادي ويضاعف ضعفه في كل حين وعينك شتان ما بين التوكل والأخذ بحكمة الغير الحكمة ضالة المؤمن فأنا وجدها أخذها لكن بقراءة رشيدة ونقد رشيد فالموقف الإسلامي عن الفكر المستورد موقف الاستفادة وليس موقف الاستسلام خذ ما صفى ودع عنك ما كدر وأية محاولة للغرس لابد أن يسبقها الحرب فتغيير الثياب لا يعني تغيير الجلود ولا تزوير العقول فلا ينبغي إذن أن تتعرض الهوية الإسلامية للطمس والمسخ أو تصبح الأمة وكأنها جهاز استقبال لا جهاز إرسال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته tabarakallahu ni ko Haj Malik Lo superviseur bi nekk fii te maam Souleymane Kane ngeen gën ko miin ci Pape Souley ni ñu ko waxee rek noonu la demee mën nañu fi nekk gan ويت من نيولين تيرو وتبارك الله مملني نك سيرن حبيب اك سيرن مام مودو اك سخنا يو جيجين ييلي وتبارك الله نوخون رك ñun nuyu kilifa yi fi daje melna ni ñuy wax kilifa nag fii ci Kaolack ñetti famille bu ñu fi dajee doy na ah ndax famille Alaji Ousmane Kane yal yàlla yokku leeram famille Alhaji Cheikh Kane yàlla yàlla yokku leeram ak famille sunu wéy maamu bopp bi di xaaji Adama Kan nekk leen fi wa tabarakallahu sunu famille yi ci des ñëw bokk ko ak moom sunu famille bi jógee Sokone jógee ci sunu nijaayu bokk di Amadou Adama euh, di ah, Mamadou Amadou waaw ma waxoon ni moo bëgg a ñëw soxna Sophie waxoon na ma ko waaye itam mu mujj yebal sunu nijaay yu baax yi tabaarakallaahu ñu ñëw teew fi mu mel ni itam sunu moomu bopp ba nekk ca njaareem di Sëriñ Bachiru Mbàkke yal na yàlla yokk leeram moom itam ay famille ak ay njabootam ñëw nañu ci xew-xew bi teew wa tabaarakallahu mu mel ni itam sunu wayjur bi nekk Medina Ñaseen wa tabaarakallahu ah moom itam yabal na délégation bu fi ñëw ci turu alxaaji ahmed ñees ak turu cheikh bachir ñees wa tabarakallahu mu mel ni ñooñu bu ñu leen nuyoo yaakaar naa ni képp ku di kilifa wala nga di wéju mel na ni nuyu nañu la ah, ah. fa tabarakallahu ilimaan yi moo xam yi dëkk Kaolack wala yi dëkk Fatick walla yi jóge feneen ni ko ko Maodo waxe wa tabarakallahu ñépp ñu ngi fi sëriñu daara yi Saalum yépp foofu sëriñu daara bu am jot nekk teew si nga ci barab bi wa tabarakallahu asatid yeeg muallimiina yeeg ñépp ma leen di nuyu di leen gërëm ci seen teewaay ñu ngay gërëm itam mouvement yi fi teew ak association islamique yi wa tabarakallahu ñu ngay nuyu itam parti politique yi fi teew ñu ngay nuyu itam ñi nga xam ni ñooy boroom dëkk bi di meeru dëkk bi ni ñu ko waxe Ibrahima Bey ñëw na ca barab ba wa tabarakallahu jottali nuyoom ak feddali wóllëre fa tabarakallahu kon nag loolu ñu ngi koo rafetlu di ko nuyu mook ay collaborateur ci niveau municipalité bu la ñu ngi itam tabarakallahu nuyu ñi fi ñëw ci wàllu presse di nuyu itam sunu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci police bi commencé ko ci seen kilifa yi fa tabarakallahu yabal nañu leen ñu ñëw pour jàppale njaboot yi ci yëf yi kon nag ci wàllu diineek wàllu àdduna ñépp ak bokk gi ngay gërëm ñëpp ñu ngay sant ñëpp wa lu daayira bi ah ni ko ko Maodo waxe noonu la demee ñu ko séqal yëpp ñu ngi fi wa ah, responsable yeeg encadreur yeeg superviseur yeeg président yeeg présidente yi waaye itam ngeen may ñu ñu beral nuyo suñu mbokk yi jógee Mauritanie ñoom Mouhamad Lamine Ndiouk ak Khalifa Ndiouk fa tabarakallahu sunu mbokk yi jógee Gambie sunu mbokk Habib Gueye mu ngi ànd ak ñoom mu ngi toog kon nag tabarakallahu ñi fi toog yëpp ay sang rek lañu ak ay gori diine waaw ñu ni nag ñu beral nuyoo fa tabarakallahu sunu mbokk eh, ñi nga xam ni ñoo yore enseignement ak orientation islamique te dimbalee njaboot yi ci wàllu colonie bi ak ci yëpp mu ngi leen di sant fa tabarakallahu mu mel ni nag comme ni ñu ko waxee Pape Souleykan waxe ko noonu ah Hadj Mansour Sarr am na lu mu leen waxoon ca géejawaay ku nekk yaa xam la ca sa biir ah nafsatul masdur nag mënul ñàkk Mansour la ca moom génne na ko Pape Souley li ci moom génne na ko waaye ku ne am na lu nekk ci yow doo tolloog occasion rek moo amul waaye ku nekkit la nga yéene mu sell yàlla xam na ko kon nag yal na yàlla mottali yéene yu sell yi tabaarakallahu sunu nijaayu bopp Moustapha Dem ah wax dëgg yàlla nit ku baax moo jiitu si ndax sunu mbokk bopp sëriñ kan dama waxoon ni ma maa lay teeru si waaye gannaaw gi mu mu xam ni bu ñëwee teeru si ma kon day mel ni ñi fi ne doyuñu ko gannaaw gi mu ni ma ah, sama mbokki bopp rekk a fa ne kon nag naa bàyyi ñu teeru la bu ma amee yaatu ñëw ma ñëw ànd ak yow ñu di seen gan bu ma ñëwal it ñoom doy nañu ma fa tabaarakallaahu mu mel ni yépp rafet na eh sama njaatige nag ni ko Pape Souley waxe di ma dalal yàlla xakim la léeg-léeg dañuy tooñante tooñu daara mu ne xalifa Babacar Diop waaw léeg-léeg ñu tooñante tooñu daara ndax yàlla ak tarbiya mu mel ni loolu la nag lu jar a sant yàlla la waaw ñu ngi ko sant ndax itam gis nga am na loo xam ni bokk ci rek doyul waaw def ca rek doyul li gën mooy nga xam ci loo waaw gis nga tarbiye ku la gën a xam ci lu mu ne rek moo la ci ëpp chance waaw moo tax tabarakallahu xàmmee yi luy am solo la ñu ngi ko ciy sant ñu ngi ciy sant njaboot yi nga xam